ogu arin ulwai no nice day fo ne la man xale bu ndaw la ko ko wara lifin tuuti sin nga wara gine yaram bo gine kay mom fani ke dama am stress ni xam nga ben war bu ndaw la bu ni ben war 5 at ni do la bu ni legi ni ngula lifin boy lifin bilang la ni ko yugal nga 5 at bi soko demé so wa boy pour le bi boy Faibat bo xamante ne amaguma ko sax nga def mo ñëw ma jox la bëgg nguron da di nga ko am boy waaw ok ya, so be yalla so ñëw ñu wako pro julli bi wa. parce que julli bi this time dafa metti de wa ni te sa suma yakaru si yow ko tek lay sax jaru reta su baraka mon mala gina stra comme si naka at bi ni sa amna kuma wara lifin ni sa ma kurtu ko ni sa mo meuna jine fef at bi mo. wa bu dul lol man li sama mako am fa do dina am lu bori di fef at ci am lu bori pour wori so fa deme mu nga am climate taw sa wa Modou Waro yow ni nga ma fekk si. yow foo jógee sax sa baag bi loolu moo tax. dama génn benn mission laa doon doon waaye mission bi. waaw noonu la noo dee ronee sa mission man tamit noonu laa ronee sama mission. mission bi nekkul ma suma bos nekkul. waaw non yow sa bos nekkul loolu nga xam ne yow da nga fal ku yàlla nga yaakaar sumb loolu sa affaire la. man nag maa ngi wax yaa yore tante bi. ama noonu duróo nii sax. hee bari na mu. waaw moo gën. Iphone at hati mo so kanana bile na mo buka le bi juri ni je gola ngole jo ngole je ela mo apa apa mati la ah he apa mati la pakel barang kala le i apa mata la kende ke kende kende ko Izin depan apa mati la pakel ne bunas ya iya Dini dini dini lebih jadi nyawal jangka di bawah iya. Jamil ya, tulun ten ten ten. Hmm. Saya ini hmm sendi ni hon ni mi balu ni hon ni ke je ke ba ni la la la la la sa ko padi ni ni hon imot iba mo dal ken de ki ko ida fa dare mo so kana padi ni sa be jame hi Thank you.

Ibu molle ibije korral e eh, akina eh, famude billahi eh, akina famude andu ya bari sabe nyaame ngamin fo ngamin jara abu kata ah, ido Ibu ibu nyaame <laughs> Ibu. wala nyaame bari de balo Ibu Ibu senko ada. Ibu tata ada. Itu itu ido do balo tata ba ta buka jam yo ah <laughs> ongul keren. buduk ngalun tambah sampai nang oh hmm. ah. eh no ref yaa ngi rek maa ngi si jàmm. maa ngi kori kaara. ah keroog keroog kontaan naa de kontaan ni. ah <laughs> eh. kontaan na. la gis. maa ngi si jàmm. la ah, ah. nga naan bi ñaari la. ku brief bi yaa bi nii wanda ajire yana da dai da yin ya baku yarin amma inda ma understand ba na ba na kasa yo sa kanyu gize sa kanyu gize ma ma ko ndo muna wa jona ko ndo muna ah kanyu ndo mo musifel busi fel pare ni aka inte so na muna minisi ba benda sadaki pan oh ñii sax ñu gën a àggee sécurité fii nii sax dama jaaxle parce que man dama gisoon ñu si yoon bi fële na li rek ma roos fat pour jiitu gars fii nii si kër ba pare ma ñëw ma fekk gars yi si kër bi ngi toog ngi relax ñu bàyyi lim baaku nii donc ñii def accès rek nga ma ma jaaxal parce que man maa ma ak ñii seen affaire sax ma jaaxal léegi nii julli bi xam na ne comme julli jot na awoon lu mu fi def ah, buwaat ah. bi ab da julli mu soog a so mission bi ñu ko defee mission bi. waaye mission bi kay moom dara baaxul man loolu dama demoon foofu noonu 350 lañ ma jox sax une five aj lañ ma waroon jël gars jox ma 350 so bi doo laa fayee paas léegi benn tri aj nga laa am soo xamal léegi nu mu faa demee. waaw te yow sax yow nga ne ba mu tam piis nga war a a jëlee jas na. jas na. waaw yàgg ñaar. donc na yàgg ngi ko jaayee laay moo four thousand. hey <laughs> foo taaw benn yàgg. ah waaye yow su yore yaa laas yaay yëfi noonu yaakaar naa la lu nga sol le benn foo taaw man maa ngi nii dama naa raba raba di five at la ma war a jox gaajama tri at yow nga naa ma ay yëfi foo taaw. te yow xam nga ne xar bi xar bi tamit da nga ko war a jënd. oncle bu boole xar bi ñoom su ñëw rey xar. xar bi su ñu amee four hundred cent. oncle su ñëw rey xar su ñu amee four hundred cent. li jënd carton ci bi lef lef lef lef dafa baax de.

Mwen nega fwen mwen. Wwa, mwen nega fwen mwen. Mwen defa jile mwen. Wwa. So mwen daje. Swen yon, yon bè jan. Don jile. Mwen li fe wou. Don jile. Mwen reksan, jise se mwen tri agi bwen. Mwen se mwashi wan testis anan. Sou mwen la tilak mwen jile jilou. Anan anan mwen ta? Sou mwen la falen. It's finished.